jox beneen secret xam nga yéen ñi nekk suñuy page bu ñuy live xam nga ñu bëri ci Facebook lañ leen jàppee dem leen jëli seen kër tëj leen ñun tam am nañu beneen réseau bu ñu ubbi ñun waa Pastef ñun ñi bu ñuy live gis nga ñu nekk di saaga su suuf bu ñu xasee capturer seen tour noonu dinañ leen jox seen adresse ngeen dem molotov seen lëfal ndey seen biir kër da ngeen di taal seen yaay yi. fexe leen ba seen yaay ubbi seen sër yi ngeen def si cocktail molotov taal seen la farandaay loolu moo leen ci génne patriote boo leen amee fulla fulla yéen a ko mun amal seen bopp jeunesse ngir yàlla génn leen sortez dem leen centre ville dem toj cent mètres boo gis nga centre ville moom mooy xoola soxlaaw ñu nombre bu génn deux jours yi ay groupe de combat la ñu xeexee mais vous avez été extrêmement efficace léegi nag ñun liggéeyal nañ leen ak ay groupe de combat xam nga liggéey nañu ba dégager terrain bi léegi yéen la population s'il vous plaît mag ndaw góor jigéen yéen ñëpp la ñuy ñaan yéen ñëpp la ñuy ñaan génn leen dox vers centre ville Macky Sall bu mu jëlaat réew mi ngir jëmmi Serigne Touba ñu ngi naan deux mille vingt six Macky Sall nag yóbbuwaat nañu beneen at gars yi fi may waxee nii je ne parle pas au peuple camerounais ñoom depuis quarante ans ils ont quelqu'un je par parle pas au Ivoiriens y a pas des militaires y des marionnettes je par parle pas à ces peuples ni aux Gabonais je ne les parle pas je parle au peuple malien au Burkinabé Niger surtout vous les Algériens je vous lance un appel solennel si Macky force tout ce qui est français sénégalais en Algérie pété s'il vous plaît Algériens nous on supporte le Mali nous on supporte l'Afrique mais nos gouvernants du système ils ne veulent pas de l'Afrique C'est pour ça qu'il les éliminer, quel que soit le prix à payer. Vous, en Afrique, quand vous devez brûler des drapeaux maintenant, le drapeau de tous les maîtres esclaves, comme Macky Sall, Alsan Ouattara, Patrick Talon, le président Nigeria, le nouveau batar la le nouveau batar africain, je connais même pas son nom, je pas besoin. Avec le bâtard comorien, surtout au Comores, Comores, il n'y a pas d'homme qui existe au Comores. Il y a partout des hommes chez nous, chez les Noirs, sauf au Comores. ce bâtard-là qui se permet de ne pas prendre des photos. Pourtant, lui, il a pris le pouvoir par coup d'État. Lui, c'est un ex-général de l'armée. C'est un vrai bâtard, le président comorien. Mais félicitations, gouvernement malien et peuple malien. Ce qui reste, c'est d'agir et de réagir, vous les Sénégalais de l'extérieur. Là où vous devez brûler le drapeau de la France, il faut associer les autres drapeaux. Ce n'est pas pour lutter contre le peuple sénégalais, mais néocolons, ces fils de pute, ces bâtards comme Macky Sall, comme Alsan Ouattara, comme les Patrick Talon, ces bâtards de l'Afrique, ces gens qui sont comme Denis Sassou comme Paul Biya, ces bâtards qui sont en train de nous sucer. C'est eux qu'il faut détruire à travers cette révolution. Et cette révolution-là, elle est déjà debout, elle est déjà sur place. À travers Assimi Goïta, que Macky Sall traite de force occulte. Sénégalais, il faut que je vous Ousmane Sonko. Non. Les forces occultes dont Macky Sall vous parle, vous savez c'est qui C'est le gouvernement malien. Les forces occultes dont Macky Sall vous parle, les financements étrangers dont Macky Sall vous parle, c'est le gouvernement malien. Et c'est ça qu'il était à le régler en Russie. Et il a mal parlé, parce qu'il a mal compris ce qu'il devait régler. Ce n'était pas une affaire personnelle parce que le Sénégal ne l'appartient pas. Les forces étrangères qui supportent Ousmane Sonko, tôt ou tard, le ministre va le dire ou le procureur va le dire. C'est Hachimi Goïta, rien d'autre. Que lui, que Macky Sall ose attaquer Hachimi Goïta en tant que président et que c'est lui qui veut déstabiliser le Sénégal. Et vous aurez de ces informations. Parce que Sonko est l'ami à Hachimi Goïta. parce que IB la l'ami à Assimi Goïta. Il y problème. Macky Sall mu ngi ñuy jaxase ak àdduna et y aura qu'on le ou non Sénégal si Sonko vi ou si Sonko meurt Macky Sall ne va pas terminer son mandat quel que soit le prix à payer ñun la war a gën a jaral tey journée nationale la semaine bi yëpp journée Thiès Tëngéej Bargny yéen ñëpp maa leen di wax sécuriser leen bloquer tout tout le monde à Sébikotane la gendarmerie ne va pas vous contenir yéen à Dakar les militaires que vous voyez laba bas devant les Auchan et tout devant les Auchan et tout je signe je persiste les militaires s'ils essaient de vous interposer devant vous mettez dans leur véhicule des cocktails Molotov. S'ils osent, ils n'ont qu'à tirer. Qui ose gagne, qui perd, paix. Ils ne vont jamais tirer sur vous. Jamais. Les enquêtes son déjà là le les enquêtes sont déjà en cours. Macky Sall lu ko neex na def lu ko neex na wax toj leen lëfal ndeyam waa CPI jël ko yóbbaale coow li jeex. xeex bi ñoom moyen lañ teg ñu nit moyen la ñuy woote gañ xeex bi. numéro yi ngeen ma yónnee yëpp démb <laughs> tenc nañ ko jàpp nañ benn booy bi mais génne naa ko fi mu nekk booy yi ñu jàpp yëpp ñun mën nañ leen génnee amul problème nañ ko teel a yëg rek jóg nag ngir Sonko mën faju ñu génnee ko ci kaso bi ñoom buñ ko yóbboo faj ko luñ ko mënti pompe buñ ko reyee yéen la ñun la Sonko nangul docteur administration laal ko te Sonko nag waxtaan wax dëgg neex yàlla yéen jeunesse bi yéen ay docteur comme ni ngeen nekkee avocat am comme ni ngeen nekkee ay garde corps am te lii yëpp da ngeen signé woon ak moom pact Moustapha Diakhaté nag actuellement celui kii dirige les opérations ba Farba Ngom am fitu menacé Macky Sall ni leen ko génn ñoom ci projet bi sa bakken da ciy des ñoom ñu demoon signé seen pacte ñoom ci pacte lañ nekk pour sacrifier Ousmane Sonko sacrifier toute l'Afrique ci pacte lañ nekk pour dem deux mille vingt six yokk ba deux mille vingt sept parce que je suis que baril pétrole yi dañ koy repousser waat nekkatul décembre deux mille vingt quatre le premier kii bi di génn Macky parewul pour dem élection actuellement rien n'est prêt pour ngeen dem élection waxoon naa leen ko bu le passé rien n'est prêt pour ngeen dem élection. amagu leen fichier électoral yi war nañ ci dugal diw war nañ ci génnee diw rien mille vingt 2026 ngeen jëm boo leen def daf loo nag Macky Sall yóbbu leen 2027 2028 bu ni mu ko neexee def ñu comme Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso nii la toogee de état d'urgence la toogee ba tey ba sànq bu suba bi Biya état d'urgence la toogee déclarer la guerre au sud c'est les comme nu Macky Sall def nii déclarer la guerre au sud commencé xeex ak ñun déclarer de siège point final day toog militaire bu fi nangu gendarme bu fi nangu état de siège wala couvre-feu di ngeen gis loo leen mosul gis Sénégal ay militaires yu ñuy taal seen ndey guddi ance gorog ñëpp laa si yemale mag ak raq ku ci sol toni maay mag yi bàyyi maay raq yi taal leen lëfal ndeyam balaa muy xat taal leen cottu ndeyam balaa muy xat amatul ay calcul may magu diw may papa diw taal leen ndayam balaa muy xat sonko bum ñu gën a gore yéen jigéen ñi nag ay soxnaax sonko gën nañu jigéenu Sénégal ñu bëri malgré am na ñuy participer ndax man jigéen ñaay gën a participer ci combat bi c'est ça que j'ai mais ay soxnaam gën nañ jigéen ñu bëri tey boo leen wàccoon ci terrain bi marche bu takkarnaase ba takkarnaase gendarme yi duñ tiire yéen magi Pastef yeeg ndaw yi Pastef yeeg yéen ñëpp daañu leen jël dóor si kaso bi balaa boobu nag jël leen seeni i ku nekk jël say responsabilité ngeen wàcc si tali bi xeex lillaay waru suuli wàcc leen xeex ngir jëmmi Serigne Bamba wàcc leen xeex ñu jëlee fi Macky doome xaram sàll mii ak Moustapha Jaxate bu ubbi la fal ndayam bi jiite te ne nañu rey ñëpp ndax moom xam na ne du dem CPI Touba lay daw làqatu après moment bi ñoom seen CPI ci Touba lañ ko teg su boobaa tam daañu toj nday Touba génne leen ñun jugé leen suñu bopp ba xam kan moo si mun dara on va voir. gars ñu ngi réunion leneen ci biir parce que ñu ngi dem Touba jël ba faali base avancée tëj Touba autorité yi dem làqatu ñàngul yéen jeunesse loo leen romb na tàkk. loo leen romb na dëgg ndeyam bi bii Cheikh Tidiane si li ma leen wax rek nee na bu yàqu jotee bu nguur ne la kaa ñu yàq ba yàqu jot lu waay yàq na ko xeeb ku mu waay mën a yàq nu yàq bi mën a ñaawee lu waay mën a katta ndeyam nan ci katt ndeyam bàyyi leen xaar bi xaar bi c'est trop ñu xeexal nañ leen deux jours yi dégagé nañ terrain bi léegi nag c'est à la population de sortir parce que waa ji jaaxle na mu ngi si suffoqué lekkul bëgg di dundee ay butéelu Evian yi ndaw di naan di toog ci ko wooroon depuis vendredi ñu taxañ taxañe ko depuis boobu calculer leen yéen ñëpp kan moo ci sañ woor depuis vendredi ndogu woo lekk sax banaana yéen ñëpp ba pare am asthme mënutoo respirer nawet bi bu tawee ba pare bu suuf si kiiwee nii bu suuf si buy jebbi nii dafay diis ça j'ai des enfants xam naa may daj nawet ma nee naa dama gis asthme ko mu rey léegi nag dem leen jëli Sonko avant qu'il ne soit trop tard ñeneen ñu yéen waa Dakar dem leen wàccee nday Macky avant qu'il ne soit trop tard waa jawbe nag commencé nañ démb gis naa taal nañ nday fépp tey tàkkaat na nii Ziguinchor commencé nañ depuis sànq liggéey bi Casamance moom job lañ ko def xëy huit heures comme école dóor ba midi añ ñëwaat dóor zik moom école lañ ko def job comme zone démb gis naa gars yi wax ci guddi gi ngeen xaw a calmer mais li ñu leen wax de boo leen reyee suñu doom ñu rey ndey seen doom sa simple léegi fa la xeex bi toll lu waaye mën yàq na ko yàq gars yi jàpp leen si combat bi ñu financé booy yi man chaque jour man bu may dem damay ñëwaat xaalis tour bi la ma gars yi ne naay moytu tour yi chaque jour bu may kii damay financé lu ma man bu dee fii ngeen yónnee France dama koy envoyé na xaalis ñëw samay boy yi may envoyé mënuma wax seen tur am na numéro bu ma joxe Sénégal ma gis xoola beer yi woo kook ñëpp eh, man maa moom numéro boobu mu ngi fii 517 29 09 dem leen Sonatel liir Baye Ndiaye moo fa nekk Baye Ndiaye Esfal moo fa nekk Njaga Yaara <laughs> maa fa nekk keneen moomu ko man maay borom mu ngi fii maa koy transmettre ci numéro bi yéen ministres yi ñëpp yor ngeen benn numéro ñetti opérateurs yi bokkul noo agent de terrain yëpp yor nañu opérateur da ngay yore man dama yor benn numéro ma yor ko Orange Expresso Tigo c'est benn numéro la mais loolu ça dépend ñu koy am Sénégal loolu c'est le système nag sama numéro la gars yi inquiétez-vous gars yi 77 517 29 09 bi lu leen neex yónnee leen Wave Western Orange Money mu yéen mu woote naan eh, père moom ma yónnee xanaa xam nga mën nga doon waxal yow it commissariat point E dem jëli waa commissariat point E de tey suba booy indiqué yëpp commencé nañ daw yéen géejawaay dinaa leen paas liste indicateur yëpp liste indicateur yëpp xam nañu règle bi géejawaay waaw ñun dinañ attaqué mais du tey xam nañu règle bi la jeunesse allez sortir Sonko de la où il avant qu'il ne soit trop maa ngi waxaat lekkul naanul il en danger mu ngi suffoqué complètement man du ma de si suba laa ko yëg ma ne non gars yi dañuy xumbal ak anu ton wax ko ma woote waat pénitencier bu ñu ne ma ah kenn amul ak accès néegam heureusement ki ma jot wax naa leen ko homme de tenue yi ñëpp duñu ay doomeraam am na si ay nit ba tey moo ma ne grand ma a mu ne ma kii lance un appel normal live nii léegi xam naa dinañ dàkkaat pénitencier yi nekk fële yëpp si bi kotaan yëpp mais yéen a xam ñoom ñoo ma ne ma lancer un appel solennel à la jeunesse ne leen Sonko ku leen ne il se porte bien waxul dëgg il va très mal ndax mu ngi suffoqué nangu ñu ay garabam dugg ñoom joxuñu leen autorisation pour ay garabam dugg sans ordonnance loolu tam moo tax sànq ma ne leen dem leen jëli ordonnance yi ngeen andi ko ci buntu kaso bi peut-être que ñu nangu ko ñu jëli ordonnance yi ñëw ñu ne fokk ñoom seen médecin contrôlé Sonko pour xam état am Sonko nee na médecin bu nekk biir si du ko contrôler ndax il a ses médecins personnels nanguwuñu garabam dugg mu ngi si sifoke lekkul naanul yéen sénégalais yaa ngi ni seetaan te Macky Sall boo moytul moo koy jël yóbbu ko pavillon spéciale fajal ko boppam par force billahi wallahi bu ñu fajee Ousmane Sonko ñoom nee naa li ñu soxla si moom bu ñu ko amoon nii dañ koy bàyyi léegi léegi mu dem te xam ne après du leen amal njëriñ ndax du fekkee 2029 même su falo gars yi loolu maa leen koy wax di waxaat gars yi seen problème bi nekkul tëj Ousmane Sonko xam nga fu ñu toll nii pour muy clair nii nii nii nii nii nii waxtaan côté bi gis naa ko booy gis naa ko gis naa ko boobu du woon pour tey bàyyil boobu paas xam nga fu ñu toll nii ñoom. Hmm? bu dëkk bi naree ñàng ba ñàng nanguñu état siège ñu dara imaam Ndao avertir naa leen Idrissa Seck gën na toj la fa ndeyam senegal ala imaam Ndao la leen wax ñu def Sonko isolé ko dóor ko liñ koy dóor bàyyi ko mu génn c'est un asthmatique rey ko dafay gaaw kom ndox avertir naa leen Sonko c'est un asthmatique pompe létale yi bu ci jëlee li ci Imam ndaw jël genn wàll gi Sonko ndaw Sonko antanu ko asthmatique la bill de li Imam Ndaw jël ci gaz létal genn wàll gi Sonko antunu ko genn wàll gi Sonko antunu ko c'est un asthmatique il est en de souffrir dans la prison de Sébikotane pénitencier yaa ma ko wax pour que je vous lance un appel solennel la jeunesse ngeen génn dem libéré waa ji yéen waa Thiès Sébikotane Tëngéej gars yi sortez ngir yàlla sortez ñu jeexal combat bi li laay war a soli ngi jëm bi Serigne Touba yéen rek lañu ñu yaakaar yéen Sonko yaakaar yéen ba homme de tenue yéen la ñuy yaakaar ba ne ma grand defal appel pour jeunesse bi gars yi yéen la ñuy yaakaar yaakaaruñu keneen ku dul yéen sortez la jeunesse vous avez déjà gagné xam nga lan moo ci des nii ay question du primeur waxoon naa leen ko course bi 10 000 la woon daw nañu arrivé moo ñu dese athlétisme laay def xam naa lu may wax arrivé sa tànk yi day dis gan sa acide lactique yéeg dootoo mu dem mais da ngay diree ko jom dévouement détermination moo ñuy yeggloo dëgg ndeyu Macky Sall génne ko palais bi mu jeex militaires yi géré ñu dem ci transition loolu lañ soxla faites vite Sonko sa vie est en danger faites vite avan que Macky di ñu dóor di ko évacuer di ko éliminer faites vite faites vite avant Macky di jël confiance lii laay war a sulli faites vite sortez sortez en masse sortez démb ngañ dem Touré wax na leen ko sortez man bi may def live naan Sonko di côté Ngagne Demba Touré boobu Ngagne Demba Touré woon responsable des jeunesses mais la may gis si politique ñoom duñ ko gis xëy na après bi ñu commencé di wax ak man waxtaanu suuf on s'est compris Ngagne Demba Touré taxaw na sortez on mène ce combat jeex na combat bi mat na ba pare sorte Ngagne Demba moo nekk ci yoon ci désobéissance civique la nekk yentam keneen kuñ ci convoqué defal comme Ngagne Demba Touré disparaît bul wuy ji di def say live di dëgg seen la fa may mën a buso yow doo am convocation duñ lay jël si direct codé nañ ma ko ba pare mais c'est pas grave sa noo de jël si sax tu vas assumer patriote nga point final on va gérer